ñu yeesal ko di lislaam dañu koo tere moom nag bu mu ko xam waaye nañ am yéene tey jii lii mu nekk suñ juma ci la ma sëñ Bas wax ne ma kon de est-ce que xalaatoo ñu yëkkati fuus ci ma ko bu ñu ko fi yëkkatee da am ci pas-pas bi xasida sëñ Tuubaa mën na loolu ndeysaan ma gis sëñ Baadu ñoom kenn ku nekk sa xol kon ñun ñëpp nañ teewlu jaayantewaat ak sëriñ bi ndax wax dëgg yàlla daj na fi loo xam ne nii buñ ñee kenn ñun ñii rek la ko bàyyee te du du ñoo ko yem suñu bopp de da koo tànn bu kenn ku ne xeeb boppam ci leneen mën naa dimbale sëriñ bi la tu'minu nabi wala tansurunnahu la Alxuraan wax nitu yàlla dañ koy dimbale mën ngaa wéeru ci moom mu mën a la lépp waaye yow loo ko mën a mooy nga dimbale ko ginnaawam li ko fi andi woon nga téye ko ba ñëpp di mën cee jariñoo nan ko yéene woon allahu yansuruni wal xalqu tatbahuni fil barri wal baxri daa nafin bila darari loolu lam ba mu koy wax mooy yàlla dama dimbali di dimbali te du deñ di dimbali mbindeef yépp nag danañ ma topp bàyyi ko ci jéere yi ak géej yi ma yor njariñ loo xam ne nii ngir jaam ñépp la te benn lor du ci am am na luñ ci gis waaye liñ ci gisugut ëpp koo jàpp ne moo war a def ñun ñii bu ci kenn xeeb sa bopp noo koy defee ci jikko ji rafet jim moomi ñépp ndax sëriñ bi dafa am baat bu mu daa wax képp koo xam ne nii jóge na fu mu mën a jóge ci àdduna bi di gëstu sama mbir nga tax koo suur tax koo dëpp ngir sa jikko doo jéggi ab jéego yamal yàlla dana yowuñu loolu nag man ba ma ko déggee dama tiital tiital boo xam ne nii dama ne man fu ma war a mën a nekk rek kenn ku ma gis ak la may xeebu xeebu war naa mën a xeebeem Sëriñ Tuubaa ci sama jëflanteeg moom ci sama jikko ca na may doxaleeg moom loolu mooy lan bu la gisee xam ne nit a ngi nit ku fonk boppam ca la mu ku ñàkk complexe lam doon ku ca fier nitu sëñ Tuubaa nu mu mooy koo xam ne ni ku mu gis nekkoob jullit mu jàpp ne yow mii dalaa war a dimbale ak milliards yoo mën a am loolu danaa jox benn exemple ndaw ñi léeg-léeg de daanaa dem ba day man lii est-ce que lu bëgg rëy waaye man ne lii bëgg rëy ndax man yàlla damaa ne ëmma complexe ci kanamu kenn rawatina ka nga xam ne dañ ne borom ndongo ta ndongo Tuuba déedéet ay weer ci ginnaaw donc sëñ Cerno mi sax dama fekk sëñ Galas mii seede la ci ndax moo jiite organisation Muxaddamatul Xidma bi fi ambassadeur américain bi ñëwee ànd ak sëñ maam moom ba ñu wowoon ma day am yoo xam ne ay symbole la da nga koy lancé mooy gën a jot bi ñëwee maa ñëw nuyu sëñ maam moom ngeen wax ne ko kii mooy suñu kilifa bi ma paree ma nuyu ko kem kuy nuyu sama morom sans complexe ngir jëmmal fa sëriñ bi te gis naa ne loolu def na effet bañ duggee ba ci biir ma laaj sëñ Mamour Arab ne ko ndax mën nañoo tàmbali mu ne ma waaw ci ci lu gàtt ma présenté ko sëriñ bi li ma naan amul hasard fekk man defoon naa benn téere bu ndaw ab tënk ci dundu sëriñ bi def ko ci anglais taman dama koo def nii rek génnee bu ma ko ba nii ma ne naa ko fara jox waaye bi ma ko leeralee kan mooy sëriñ bi ci ci niñ ko war a leeralee ku ko gëm ma ne ko ku baax la woon di jullit di nitu yàlla toppoon nangam nangam ñëw fekk Sénégal mu nekk ci ay crise yu bëri mu ñëw ngir saafara bu ñu la ko saafara mu ne message bii de bu ci àdduna bi tegoo lépp jàpp kon problème am na foofu mooy ñëpp xam nañ ne Sëriñ Touba mën naa lijjanti lépp waaye nuñ koy mën a xamee ak ku leen koy xamal loolu kon ay téere borom moo gaanu moom mënul fi lépp lu li may faral di wax xasida yi ginnaaw jàng lépp jëlal benn nga jaayale ko sa diggante sëriñ bi saa boo demee ba féex jal mën ngaa jël lu bari loo ci mën a barkeel nga barkeel ci waaye wakkaana moom day xasida xar baax ngoo xam ne daana wax ne lépp lu ci waaye parce que gisu ko na xoolaat boppam ndax àtt na ko nangoo naa ci sëriñ Moussa Fass yi ci jataay boo xam moom sëriñ Saliou la xëy na am na moom danaa ko tëb waaye daana wax ne wakkaana xaqan boo koy jàng ba ci àgg wala tata xabal zal kalaam day mel ne bu taxaw loo ci yëpp xaj na ci boo yéenee sa aajo nga continuer mun na ala xaari yi di muróofi bi maa yëppu zann min maarufi loolu sëñ Ahmadou dana mën a xam li tax may wax ndax waltata xabal darkaan mooy wax jii ma wax jépp nañ ko nangu buñ ko nangoo ba pare nga wax sa aajo mu ne ki doon jàng araf yii jox ko lu kawe jox te dafa bokk ci teggi ñaan booy ñaan li ngay ñaan nga nga jàpp ne nii ñii nangu nag nga koy gis te loolu sëriñ bi moo ñu ko jàngal ca Matlaboul Fawzayni li ma lay ñaan damaa wóor ne nangu waaye di ñaan yàlla di si rakam xam dana ko nangu wala ko nangu loolu yow yàlla la yàlla xéwal yi yëpp soxla ko te boo ko ñëwoon mere la da nga koy ñaan sëriñ Tuubaa loolu képp ku ko yaakaar kiite jooju war nga ko am benn bi ma ciy teg te jàll ci kii bi mooy ki laaj maxaar bi maa ngi jëm wax naa ci lu ne ndax day moom it day xasiida xar baax boo jël rek mu mu mënoo masaale bi si mooy xasiida boo xam ne nii mën naa defar nit àggale ko fu nekk te xaddu la moom ngay jaxasoo nit ñi dem ak dikk ngay defaru da ngay jékki-jékki bi feeñ rek nga xam ne feeñ loolu nag bu ko nit manee def ko ci ay mbindam asamaan jëmu kenn ku ne am na ci sa ordonnance jëlal ba nga am yaakaar ginnaaw ndigal ndax ndigal day barkeel nga nekk ca jamono yi nga koy jàng loo mën a sàmmonteel ci ay teggin nga sàmmonteel moom mbubb mu rafet nga sol ko toog jublu penku teewlu jëmmi Sëriñ Tuubaa mel ne mi ngi loolu képp koo ko teewlu jàng xasida faaw da nga jariñ ndax lépp lu laaj da nga kon danañ ñëw ci thème bi mooy moom moom moom xar xar baax la mooy moom day am ci loo xam ne bu mu wéetee dana ko mën a waaye eh, xar baax la mooy xasee boo xam sëriñ na ci ba ak dal tudd doo turam nga xam ne bi doo ko gis ci baaxlu yi ñu miin ci wayu arab day mel ne daaju gaaf bi naari gànnaar yi daa mel ni mu gis ne lii yonte bi rek ay ci la way booy mun naa fi li ma daay champion te li gën a yéeme ci sëriñ bi mooy boo xoolee xasee ak mawaahibu bayit yëpp téeméeri bayit la ak juróom-benn fukk ak juróom-benn 160 bayit tolloog laa ilaha illallah baa bi kon euh, nga xam ne sëriñ bi dalaa wax ne yaa man xamaaniye bikkutu bi bu ma bindee xasiida ni ngeen ci yéemoo bu ma paree noonu laa ci yéemoo ndax dañ naan ma bindal loolu sëriñ moo ko bind yaa man bikkutu bi aar naa la bindal dara du ci sikk benn gàkk du ci am léppay baax jóge ci la woon na xuus nee na bu ma paree ni ngeen ci yéemoo noonu laa ci yéemoo kon nag nañ ma dimbale bu ma tontoo kii ma dem ci tem bi Café Touba la bëgg ma am lu ma ci wax Café Touba ma yaakaar naa def naa ci vidéo boo xam ne nii war na ci WhatsApp bi ba boo ko yónnee mën na ko yónnee loolu benn nit boo xam ne nii dama ko jëlee ci silsile yu wér ndax Café Touba tamit jàpp naa ne war ngeen ci liggéey ab liggéey ndax fii la bawoo sëriñ bi tubaab da koy ziyaare café gi watt suñ borom ne ko li ma lay fay ci tukki bi bëri na lool waaye dana am loo xam ne danaa ko jaare ci café ba mu àggee Sénégal fu ne la ko wërlu wut lu bëri wut suukar su bëri ak jàpp wane nan lañ war a tàngale kafe sëriñ bi moo ko jàngale de kon ma jàpp ne Gabon kenn war leen jiitu ci xool projet bu ngeen def ci kafe du wax lépp nag waaye danaa junjub junj du Nescafé am na du nekkul ci sachet da tàngal ndox rek def mu seey kafe tubaab mënta am loolu doonte jar am na diw diw bi mënees na ko génne ba am ci puudar junj la boo xam ne nii bu ngeen ko gëstoo mën ngeen ci hmm. am dara. Hmm. Hmm. da daan ñëw ñu jotaayoo ci ay jamono di Hmm. dañu am fu ñuy daje di toog di waxtaan. suñu Cheikh xam nga ne ci kanamu suñu Cheikh naa mi dem naa Malaisie ca boori Chine ñaari yoon ngir café Touba gi xam naa ju bëri. léegi moom moomu nag nga xam mooy ministre yi maanaam ni ñuy waxtaanee mbirum café Touba ak ñun demee hmm. ñuy wax ba ni ko daal hmm. euh, projet bi nga xam ne mooy projet bi gën a dox ci yoonu mooy nga xam balaa ngaa sottal sa projet ñu koy génn noppi ne mooy café Touba te gis nañ ne suufu si Gabon malaisien yooyu nga tudd boo génnee mayom bu génn ci bàngam ba ngay àgg ba ba ngay àgg làmba na mhm. àll nekk yëpp ñoom palme palme à huile lañ ko plante yëpp àll moom moom lañ ko olaam camion boo dajee rek te bànn bi doon nekk loolu lañ ji mhm. te ñu gis ni waa si ñoom dafa lu ñoom Gabon daal mhm. bu ko defee nag te sëñ Tuubaa moom ni mu moomee réew mi sax dafa dafa dafa jaaduwul loolu nag maanaam bi nga ko déggee moom moom ministre boobu bi nga xamee ni moo ko sëñ Cheikh Ibrahima daje nañ ci benn audience boo xam ne président bi ñëwoon Sénégal. Hmm. moom ministre boobu moo waxal boppam loolu si. Hmm. ko wax ko maanaam bokk na leen di jox sax bu ñu def kër sëñ Touba ak daara jeeg yëpp. Hmm. waaye nañ leen si yaatu ngir ñu bay ci fa njëkk defar def ko ci échantillon nga xam ne 2 grammes lay nekk dama cee def jar waaye premier essai la woon ndax booba boo ko defee ci ndox mi dana seey waaye garabaay gi dana des ma may ko chinois ya fa nekkoon waaye dañ may wax ne ñoom suba bu jot. nit ñi dañuy ragal di ko jël ndax day leeral seen i bët taban boobu ba léegi woon ta boo xoolee café bayuñu ko Sénégal te boo dégg café Touba léegi dem na ba ci àdduna bépp te fi ni café Touba Touba bi maanaam dañ bu paree woon dañ koy jàppe café de luxe kafe bien fait lañ koy jàppe ndax dafa am lu ci ne yooyu yëpp nag war nañ leen ko mën a wax ba nga xam ne adduna bépp ci la ñuy gën a xamee sañ Tuubaa te Sëñ Tuubaa nu ñu ko mën a xamee rek boo duggee ñu leeral Café Touba gi Sëriñ Saliou dafa dem bis Mbuur fekk ko sëñ Mbay Jóob man dem naa ba ci sëñ Mbay Jóob te la leen nett li bii nett li bii ne leen sëñ am sëriñ Jaxate bis dafa ñëw ci ku baax sëriñ Tuubaa ne ko am satu ndax naan nga kafe mu ne ko Mbàkke dina rëb moomu mu ne ko dafa jara dara dafa jar nga xëy te nanoo kafe mu ne ko am dafa jàppajul mu ne ko Mbàkke dafa jàppajul mu ne ko am nga ñaari mbubb mu ne ko waaw mu ne ko demal nga jaay benn sëñ am satu génn faratase koo xam ne moo ko gën a soxla mbubb mu gaaw a ñëwaat sëriñ ne ko ah, yow am satu gaaw ngaa ñëwaat man xam naa barke bi digal bi ma ko digal moo tax ma dajee koo xam ne dama ko soxla ba ma fàgg ko ci mu ne ko waaye sama café tuddul café sama café mi ngi tudd yekku ful abda maa laa yeliku la tudd day fekk jaam bi ba dugg ci lu jarul ba dugg ci lu yellul waaye nag kaay ma wax la sama café ku bëgg nooy boo koy def booy dëpp looy def la nga wax bismillah booy sàq nga wax bisimilah rek boo demee ba kafe nga ñor nga teggi ko ci taar bi def ca jar mu booy dëgg nga wax bisimilah rek boo amee sungus nga tari ci benn faatiye baqara ba mu flipoon joxe kaas looy def wax bisimilah rek loolu la képp ku ko def da sama kafe tegal ko tene ko sama kafe de ñu ñuul ñëpp te gëmul njàll bu ñu doon jaamu yàlla la amee ci tiyaabe ku def sama kafe dana ko tegal ko ne sama attaaya tamit képp ko ko def ñu weex ñëpp te gëmuñ yàlla buñ jaamoon yàlla la ñu am ci tiyaaba dana ko moom mu jaar moom foofu attaayam waaye loolu buñ ko toppee yëf yi jeex loolu nag dañ ko war a delloosi li may wax ne ñun waruñoo dëppale sëñ Tuubaa ak jamono waaye jamono lañu war a fexe dëppale ko sëriñ bi kenn kuy xëy di di dëpp kafe daanañ ko réer waaye am nañu koy def ba tey même bu ko jamono weesoo am na ñu ko mën a dëppale ba war a mën a ànd ak moom yooyu yëpp ay xalaat la yoo war nañu ko jaral kon fii ci Mayumba fi la sëriñ bi nekk liggéey fi liggéey bu mag boo xam ne ni coono yam ca mooy suñ bànneex tey xiif na fi xiif bu jéggi dayoo mar na fi mar bu jéggi dayoo ay guddi lu gëm bët teg fi bakkanam nag loo xam ne ni kenn mënu koo melal ci ay xeeti metti ngir tarbiya boppam ngir sonal boppam boole koom nag jaamu yàlla bu tar fii ci maayomba daana toog ñetti weer tubaab yi ñu ko gis ak lu wax ci bangaasam kon kooku kenn ku ne xam ne ko dara daa am lu ko yëkkati te xam ne fii rek la ko mën a amee te daana ñaan tukki bii ndax mu gën a mën a féex ngir liggéey yoon tamit ngir gën a mën a jaamu yàlla koo yilif am matuwaay yëpp jékki-jékki ñetti weer doo gis mu ñëwaatal boppam koo xam ne kon la nga xam ne nee na fii ci Maayomba araani rabbi uyuba nafsi kullaha wa minha xatta sirtu xaadiman li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fii ci Maayomba ci la ma suñ boroom laabale ci mbooleem sikk yi laabal ma ci lépp ba ma mujj di xaadimu rasul nee fii ci Maayomba laa mujj mel ne jant jant ba nag moo tiim lépp ci njariñ ak ci mbaax ñëpp dañ ciy jariñ dimension boobu mu am maa yomb fii ñu toog fenn fu ne jàppal ne sëriñ bi na fa tànk ndax fu ne la daa dugg ci yi moom na feex rek ba def li mu def foofu na nga yimaat ci sëriñ bi natt yu toll nii bu doonoon keneen war ngaa mën a xalaat lan leen lu gën a mën a féexal sa bëgg waaye lu mu a tegoo coono rek mu gën a lu ndax xam na ne li mu bëgg soobee mi ne fii yëpp yëpp du lu tuut ndax ba muy jógee Mbàkke Baari am na Cheikh Rafaam mu tër bi ko ba jox ko ngërëm ñu bëri topp ko am na sëñ Mandou Mbay am na Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye sëñ Massamba Diouf Sarr ñun ñëpp tër bi maam Cheikh bu toogoon foofu lépp lu mu bëgg ñu defal ko waaye boobu ma ngi leen di ñu naan sama der bi danaa ko sànni foo xam ne nii da ngeen danaa ko wéy du ngeen ko xëccoo kon barab bu tedd la boo xam da koo ñagal boppam ba lii am tey nee ci barab bi laa mel ne jant suñ borom jox ma ay may yoo xam ne ni du jeex ba mukk moo tax lépp luñ gis nañ jàpp ne lañ gis lu du te am murit calculer baaxul ci moom ah lii bu ma ko defee est-ce que coopérative dina ko yow la nga war a def mooy amal si yéene bi dëgg lii laa war a def def li des nga bàyyi seen gaal loolu yoonu murit da cee wane exemple yu dul jeex. raay bi rek raay bi dañ koy wax nii muy dem nii rek waaye raay bi modèle bu ko gën a parfait amul mësuñoo gis ci àdduna bu àdduna jeex projet bu mel ne raay bi ñu defar ko ngir dara rek ngir jumaa ngir màggal yàlla dong moo tax ñu def raay bi xam bu ñëwoon ngir wa dëkk bi mën a ñëw ci dëkk bi waaye ngir néegu yàlla dong ak gàllankoor am ak mag ñi taxawaay ba ñu taxaw gas ba lépp ñu waaye loolu fu ñu ko sukkandikoo ci ndigalul sëriñ bi ndax dana leen woon bi mu leen ñuy laaj jumaa yi njaareem ji laajee ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett mu laajee ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ba lépp matee mu ne leen lii de li ma ci jublu mooy damaa bëgg lii mooy yoon wi bu leen sukkandikoo ci kenn lépp lu ngeen bëgg dem leen ca ba jeex leen lu lew lu ngeen ko mën a defee bu ngeen defee la ngeen mën a def ba jeex li des ngeen bàyyi yàlla ndax bu ngeen sukkandikoo ci kenn ku leen sëñta sañal dana leen sañal te yow mu di booba te noonu lañ doon amul lenn luñ mas a sàkku ci keneen moo tax ba fa roi bi yaakaar naa yónni si ñëpp laat dañu bëggoon a financé nangam nangam mun koy yoon nga daa am rek fan nga mos a dégg ñu ne yoonu murit lii dañ leen boole tam dañ naan lii dañ koy defar yàlla ngir seen jumaa taalib yi ñëw leen taalib yi joxe ba loolu taxaw muy jumaa yeeg muy masaalik ak ju kër seen jumaa gii di jumaa yow ak faneen faneen jeex jeexagul gisaguñ dara ndax fii ñu toll dañoo toll ci Sëriñ Tuubaa aw tëm war a daj àdduna ndax téeméeri at dafa mag te téeméeri at du mate noonu fawu am siiñ yu feeñ lii rek lii rek misaal la ci lii fi am nii ndax Sëriñ Tuubaa dëwul natt ci ati ati ati ati tubaab yi ati weer wi la daa natt 1346 di wom sachin ci la làqu suñuy bët ñu ngi dugg nii ci tamxarit bi 1446 buñ demee ba fukki fan ak juróom-ñeent yëpp ci la sëñ Tuubaa di matal téeméeri at ba mu fi jógee léegi sëñ Tuubaa nag daa am lu ko andi yeesalaat lislaam na ko yonante bi dundi dëgg bi yonent ñëw ne nii laa ko doon dundee nii laa doon ko yoral sa jaaree samay saxaaba dama bëgg loolu nga dekkalaat ko ba ñëpp xam ko jumtukaay yam koy defee ak moyens yooyu yëpp yaa kor je yonent bi jox mu yeesalaat lislaam ba gisatuñ ko téeméeri at mag ganeen yeesal war a ñëw loolu kenn ku ne xam na ko ci nee na téeméeri at yu mat yu nekk ca tàmbali bi téeméeri at suñu borom dana yabal kuy beesalaat diine waaye loolu sëriñ tontul na ko boppam ba muy ñaan ne yow sama borom bëgg nga may ma njaboot boo xam ne nii lii ma doon yeesal ñoo koy continuer ñoo koy continuer nag amul fu mu yem waaye ñun li ñu mën a xam ci suñu xam-xam bu mooy sëriñ bi na ñëpp ko gis ne ñeenti téeméeri at yii moo ko moom kon waa këram am nañu sas téeméeri at bii mat na téeméeri at bii ñëwaat ñun ñi ñoo yor responsabilité bii ñëwaat ñun ñëpp ñoo ko ba tey topp ñun ñëpp ñoo kon liggéey li des mu ëpp fuuf li weesu ban taxawaay rek la ñu war a taxawaay nañ fexe ba rëdd rëdd woo xam ni buñ fi jógee dañ ne lii ñoo ko rëddoon te muy rëdd bu rafet moo tax sëñ Abdou Lahad daana wax kenn mënu koo waaye fexe ba rëdd fi rëdd boo xam boo jógee ñëpp dañu xam ne yaa ko kon loolu mooy thème bi waaye nag bala ñu dugg ci thème bi wam sëriñ bi dafay tëggoon ñetti baat bésub gaaw muy samedi bi mujjee wax nit ñi gannaaw ba mu jullee tàkkusaan ci jàkkee ji la ndax nit ñi ñëw nañ ginnaaw boobu leen woo ñu ne ko ñu ëpp de ñëw nañ ca wax ak ñoom baat yi bokk na ca wax na ngeen sant yàlla ndax yàlla dafa boyal ay jaamam bu ko neexee ñoom ñëpp mu soobu leen ci ak jub waaye defu yéen ñëpp na ngeen sant yàlla bu ko neexoon mu boyal ay jaamam ñoom ñëpp ci ngirum njub waaye def dafay bàyyi ay ndigal ak i tere ndigali yàlla yi ku ko topp jàmm rek la lay jëme tere yàlla yi képp ku ko def ci safaan rek la lay jëme mu ne leen ñi njëkk te baax ñëpp ci ñaar yi rek lañu rawante téere yi li muy bëri bëri génn ñaar yi muy ndigal yi ak tere yi képp ku ngeen fi dégg ñu koy tudd ci ñaar ñi la roy ñëpp daal ci teg ne ngalawaay ngeen jàng xam lu ba xam lan mooy ndigal yi ngeen di ko jël ngalawaay na ngeen xam lu ba xam tere yi te di ko moytu soxna yi sax am na lu mu leen di tegal boole ko ñëpp muy na ngeen xam ne jamono yi ñu toll jamonoy gàttu tànk la ak noppi ak nekk ci lu la amal njariñ muy xutbatu boo xam ne nii jamono ju ne war nañ koy tegaat ngir nit ñi di mën a am ndax barke day gërëm loo te sëñ Tuubaa barke bi dafa bëri dafa yaatu te du ku ko topp rek da nga barakati waasiatun waa baaqiya barakatan laa tanzali fu ne wax na ko sama barke yaatun ñu ngi ciy dund waaye buñ ko toppee li ñu ak moom danañ ko fàtte loolu nag mooy liggéey moo tax ma doon wax ne pas-pasu jaayante suñu diggante lan lañ ko war a defal ci suñu jëm yi bopp kon thème bi mooy woote bi sëriñ bi woote woon ca Mbàkke Kajoor ne yonent bi dikkal na ma ngir ma beesalaat diine ci ndigalam continuer wala continuer lañuy waxtaane kon kenn ku ne xam ne ñu ngi ci tàmbali téeméeri ay fan rek ñu dugg ci feeg ay fan ñu dugg ci lan moo ñu ci war mooy ñun ñëpp ñu xam ne fii dëkkuñ fi ndax kii ñuy waxtaane nii làq na suñu bët buñ ko fekkee ñun lan lañ koy yóbbul kenn ku ne war nga koo xalaat sa bopp nii mu demee woon fi maa yomb lépp jeex ñun ñi fi nekk tamit lépp day jeex ñeneen ñëwaat lépp jeex kóllëre boobu rek moo dox suñu diggante ak sëriñ bi kon niñ ko waxee yoon def salaasam dafa ñëw jox ko ndigal ndigal li mooy mu yaraat nit ñi beesalaat xol yi ak xel yi ak jikko yi defaraat yaram yi waaye li nga xam ne bu doxee lépp dox loolu la ko yoonu sallallahu alayhi wasallam ne ko jëlal jumtukaay boobu muy seen yitte yéegal ko ci kaw te yitte bu yéegee fu ne mën nga fa àgg looy nawe nit nii ba nga ko koy nawe la muy def mi ngi koy def ci sa kanam moo tax am na ko ñuy wax sëñ tafsir la Moussa Dramé ku sëriñ bi fonkoon danaa ci dikkaat te ndaw la woon nag sëriñ bi daana tëjoo moom sax daana wax ni mayu yàlla wax ju xóot la nag mayu yàlla bu nit jombale boppam ñàkk gaa ko dikkal waaye gisu ko ci lu dul jaamu boromam su nga dégg ngeen wax ni mayu yàlla bu nit jombale boppam ñàkk gaa ko dikkal waaye gis ko ci lu dul jaamu yàlla gépp may goo fi dégg nit am ko nga koy jombale sa bopp da koo amul waaye moo ne ab jaam dong bu am yittee ko am te loolu sëriñ bi da koo jàngale yonente bi saxaaba yi ñoo fi nekkoon sëriñ bi bi mu ñëwee taxaw taxawaayu yonente bi waaye indi na fi ñoo xam ne nii seeni daraja yéegal nañ ko ci saxaaba yi ngir seen yitte moo tax ca tàmbali ba buñ masaa ñëw di lakk seeni kër di leen génni di leen dóor ay jaas yi ñuy deretal buñ ñëwee ba ci moom mel na kuy bëgg a jàmbat dana leen déet saaba yi ñooy seen bàyyi ji diine te dajagu leen lañ dajoon kon muñ leen lu ne daj nañ ko ñoom ñooñ nag loolu ñu dajoon ñun ñii lañ ko dajal ñun moom am na loo xam ne duñ ko mas a daj mukk kon woyof na woyof na lool sëñ Tafsir Balla Moussa Dramé moom am na bi sëriñ bi tëjee moom te muy ndaw mu mujj am kersa daal ci mag ñi nekk ci biti di di xaar mbooloo muy bëri lool mu ne sëriñ bi daa mel ne de daa am ñuy xaar sëriñ bi ne ko yow de dangaa mel ne ku yor ku ñuy jox wurus wu bees tàq wu tooy xëpp nga cay sotti suuf ngir wan sëriñ bi ni mu bëggee woon xam-xam ak ni mu bëggee woon nit ku jariñu rek moom la ko nit ñi di xaar xaalis baag alal ji xëppoon kii daal moom lii ñor na ko te yitte mi ngi kawe mi ngi jariñu doylu ko sëkk euh, fu jamono dérapé fu sikk amee bu ñu delluwaatee ci sëriñ bi rek war nañu mën a jubbanti ko waaye sëriñ bi yàlla da koo defal dafa ñëw ngir beesal diine loolu boo ko boo ci qualifié sëñ bi nag ne dafa ñëw ngir beesal diine day tuuti dafa ñëw ngir beesal diine waaye yàlla da koo jox loo xam ne kenn mësu koo gis kenn mësu koo dégg mu boole ko moom mas ngaa dégg kenn kuy beesal nga ñëw laaj ko mu ne xaaral ma dugg laaju sama borom loolu kenn mësu koo dégg loolu na boolee nee day ñëw ngir beesal rek am na leneen loo xam ne ni kenn xamu ko xaaral ma dugg laaj sa borom génn na saa neen loolu loolu maanaam li si jàmm doon wax ñun dafa bari lu ñu gis ci sëriñ bi miin ko te fekk lu doy waa am ñoo xam bu ñu ko amoon exploit xar baax la waxuma ne yii mu def maa yow xar baax waaye jëmmi boppam ak jikkoy boppam rek doxinu boppam rek xar baax dugg laaj sa borom jékki-jékki bind ne suñu borom bind na ca la waxoon mahfuus ne li nga daa dégg mooy yàlla xamal ne ma ne ma waaye bind ne yàlla bind na ca loolu moom du daj wala yonente bi nee na ma axbarani rasulullah moom rek lañ ko dégg xam ne ni gis na man kataba mu ne noonu noonu yi dana dëkkaaleeg yàlla bisub àddine jullee yoon yoon te ba yor-yor yu jot bañ gëjee gis sëñ bi mooy samedi waaye ni nga xamee ne altine fekk na ko fi mooy sëñ Ibnu Amar da doon root ca teen ba jaaree ci buntu ginnaaw ba ab tànkam dëppaloo tànk sëñ bi jeexee ñu xam ne kon léegi la fi mu tooy kon kooku kanamam da koo leer sama waajur mi may nekk ne ma sëñ Moussa Fassila da wax ne ko sëriñ bi. mës ta séentu weer suba la nangam lay wax suba la weeru feeñ wala suba la lay maanaam dafa am yoo xam ne nii boo ko waxee koo mun tawfeex maanaam sëriñ li mu doon def dara da ca da lépp dafa xar baaxee xam nga kenn mës koo dégg tollool boo ko waxee kenn daal loolu nu mën a te fekk loolu lépp yàllaa koy maye dong dégg suba la lay la ko suba la nangam kon noonu la sëriñ bi ñëwee ci Mbàkke Kajoor wax li ko yonent bi wax ne ko daal nii ñu doon jàngalee tam xew jàngala rek nga dem dama bëgg nga soppi nag njàngale mi ànd ak tërbiya na ma ko daa defe lu wàcc saxaaba yi jëfe yar leen tàggaleen seen sikki bakkan ba jox leen ngërëmul yàlla loolu laa bëgg nga jaare ko ñi ànd yow waaye nag nga jaare ko ci yëkkati seen yitte ca kaw ca la def déclaration bu rëy boobee ba mu ko defee ba muy jàngale alfiya ba toll ci bay di woowu di jàngale masdar nu mu demee ni sëriñ waaw faxalul mu xiyaas madul mu allaaka nu mu koy waxee ca bay rek sànni téere te la wax la wax bi duggee ci biir na ko sëñ Mouhamadou Ndiol danga na neet li yëf yi mësuñ koo dégg dafa bees ndax yonte bi ba fi jógee lu bëri dafa ràpp fommeeg buur yeeg tasaare lu bëri loolu nag la ko yonte ñëw ne ko ginnaaw lu bëri faram ñëwal yeesalaatal mu mbir ñenn ñi miinoon jàngum kese tam doy leen ñenn ñi dem ña ca ñoo ko toog waaye sëriñ bi dafa amoon confiance ci boppam amoon confiance ci yàlla ba tax mbiram mu xam ne lii yàllaa ko ko jox da koo téye boppam ndax sëriñ bi ñi aju woon ci moom duñu nit yi simple ñoo xam ne ni dañoo dañu réer am ab cër ci yàlla ñoo ñëwoon ci moom loolu fi ne bu ñu ko dee xool loolu rek xar baax la ay nit yàlla ñoo ñëwoon ci moom ñoo xam ne xam nañ charia xam lépp waaye rek sëriñ bi daa am loo xam ne nii xamuñ ko daa am loo xam ne nii xamuñ ko am na ci mel na mag moo xam ne nii nitu yàlla lool lool ku sëriñ bi fonkoon bi ñëwee ci sëriñ bi dafa am bis mu ñëw sëriñ bi Mbàkke Kajoor sëriñ bi ne ko yow de am na loolu fi wuutu mu ne ko lan la mu ne ko xanaa jaayante lu ma la digal nga def lu ma la tere nga bàyyi te kooku moo xawoon a féete bi ay at ci mageel kooku ree ba ne ko xaali bu kulli fan bu mel ne man nga xam ne xam-xam yëpp dajale naa sëriñ bi nag ay waxam bëriwutoon tontu ba julli jot mu ne ko jiiteel bi mu jógee kàbbar mënta tari faatiha at ko sëriñ bi tarbiyee yëpp mënta tari faatiha sëriñ bi di ko rootloo ba bis sëriñ bi nag war koo jox ko ngërëmul yàlla mu ne ko damaa yoroon ñam wu neex wu taaru bu kawe bëgg na koo jox xamul lu ma la koy joxe ndax sa biir bi daa feesoon dell ak ñam yu bari yu ñàkk solo tey nag deñ na ñam woowu laa lay jox bis ni tey yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na ma gërëm ba mu ko ko waxee la xam-xam bépp dikkaat gis nga kooku ni mu amee responsabilité ak ñi mu ñemee ci ne ñun ñii la ko war a wàll est-ce que dama bëggaat ñun ñu xam ne adduna bi ñoo leen war a xeetli ak kum man doon ñoo la war a xeetli nga xam ne jamono bi sëriñ bi ñëw Sénégal ak fudul Sénégal ñëpp ci crise lañ nekkoon ci wàllu politique wàllu économie wàllu culture wàllu société wàllu diine ñëpp ci crise lañ nekkoon sëriñ bi ñëw ngir faj loolu lépp téeméeri at yii tamit day faj loolu lépp yii di ñëwaat tamit loolu lépp da koy faj ndax li koy faj lépp bàyyi na ko fi jàngal ñu mu indi benn projet de société boo xam ne ñii mi ngi ko def ci xasidaam ku tudd Matlabul Fawzayni waaye li ci gën a yéeme boo bëggee dara da nga naan nii laa ko bëgg nii laa ko bëgg waaye sëriñ bi waxul nii laa ko bëgg lam bëgg da koo def ay ñaan ñaan ko borom loolu rek jàngal nañu ci ne loo bëgg lu ne ca yàlla nga war a dellu wax ko sa bëgg te dox jëm ci moo tax euh, Nations bi ñu fi defee ne Touba daal di koy jël comme ville modèle te sëñ Moussa Saliou demoon ci kenn ku ne gis nga vidéo yi mu ne leen biir bii li mu wuteeg yeneen biir mooy dafa lalu ci ngëm te yéen amu leenu ngëm ku am tun ngëm am na loo xam koo comprendre ñuy dem ba jamono jii ci ginnaaw lañ ne Touba mooy dëkk bi ëpp population ci Sénégal ci dëkk boo xam ne ni 1888 lañ ko sañ nga xam ne moom xamul fu mu yem day dem rek fu mu àgg ci ñëw nga ne damaa bëgg sama tiir poos dugg ji ñu dugal ci muy dëkk boo xam ne nii dalay wóor ne ngëm rek a ko tabax kenn mësu koo moom ka fa doon ñëw la mu fa ñëwee mooy jaamu yàlla ak liggéeyante lu fa ñëwaat barke bi moo ko moo ko yaatal waaye moom la liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa booba nag ci la déclaré maanaam wax yi may bëgg a wax amara ni rabbi bi an usarriha bi annani malaazun wa mafdarun fa man araada al xayra fi kiltayi daarayni falyaluz bi suñ borom moo ma digal ne man ab wéeruwaay laa ab làquwaay laa képp ku bëgg lu baax képp ku bëgg mucc adduna ak àllaaxira na nga ñëw ci wéer wéeru ci ma adduna gi ñëpp bëgg mucc kenn ku ne la ngay yëngatu lu mu mën di doon wéeruwaay mooy sëriñ bi ndax loo ca jaaxle boo ko gëstoo mbiram da fekk luy saafara loolu moo tax dana baax kenn ko ne xam sëriñ bi bi mu ñëw lu mu fi fekkoon dana tax nga xam mission bi ko indiwoon ni mu réeram ndax sëriñ bi lépp luy xam-xamu diine teewoon na xeeti xam-xam yëpp feegoon na ñëpp daa gis mu ko daa jëfe jëfe gu ànd ak pasteef gu ànd ak sàmm waaye jikko ju rafet suñ tubaa moom jikko moom jikko rek boo ko jëloon tam ne ñëwul maayo ma sax jikko ji rek day xar baax jikko ju rafet yéenewul kenn wu ay suñu amoon doon wax rek yar xam jamee la war a war ngaa mën a tal la neen waaye yow ñii ñëw di la nga naan alhamdulilah xool xoola bëgg bëgg bëgg bëgg jàmm jooju bëgg lu baax loolu ñëpp gis jikkoom ju rafet mu koy gonte di ko xëye waaye nag ñëpp gis ne que kii kat am na leeru yàlla buy bàyyi ko ci moom bu tax nit ñëpp di màbboo ko di ñëw ci moom loolu nag taxoon nañu bari bëgg ko ba ci kër buur yeeg fenn fu ne ay nit di fa jóge di ñëw waaye nag ñeneen di ko fii ndax gis nañ ne seen taalibe tàmbale nangu te tubaab bi gis na ne kii kat lii mu samp buñ ko gàllankoor liñ bëgg du fi am barke bi di yokk fu ne nit di fa jóge tubaab bi nag ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon kilifa aada yi fii laa ngi tàmbalee na ñëw ba ci la jaxase bi ñëwee bañ woolu ko ndar waaye sëriñ bi lim njëkk a fekk société bi nekk ci mooy liñ naan al nifaaq al ijtimaai sëriñ bi bu daa wax bokkaale jamono jublu ci bokkaale de maanaam nit ñi di dund diine gis loo xam ne nii du dëgg ñu nopp te bañ caa wax loolu la fekkoon ñoo xam jàng nañ ba ne ar gis lii ne du dëgg waaye ngir bëgg poñati mu àdduna ñu noppi ci mu ñëw ne leen loolu loolu lu fi amee kon nag ñun ñii ko yaakaar tamit doxin woo war nañ koo doxe gis dëgg man caa wax te doo ca wax loolu moom fa la naa féq tàmbale te loolu sëriñ bi dafay dafay ñëw dindi ko kon képp ku koy wooye loolu moom war nga caa bàyyi sa wewu ndax nit ñi lu tax duñu wax dëgg léegi mooy intérêt loolu képp ku koy sóor doo wax dëgg moom li am solo nit buy wax na teewlu jëmmi yàlla bu mu wax ngir gotti kenn bu mu wax ngir yëkkati kenn na wax ngir jëmmi yàlla liggéeyal sëriñ bi loolu bu ko ñëpp defee lépp jàpp waaye xam ne lii du dëgg lii ak tooñ la lii baaxul ci société bi nga noppi ci loolu moom ngëm gu wér da koo fekkewul beneen problème bi mooy gisoon na nit yi diine yi fi fekkoon dañoo jaxasoo woon ak buur yi nekk seeni complice jaxasoog moom lool te moom ni mu doon doxe mooy niti nguur yi dañ leen war a sori ndax am na lettre bu bi bindoon sàmbaloo bi mi ngi koy wax ne ko àdduna ji zaaxir si yéen a ko yor waaye baatin bi ñun wàllu yi ñoo ko yor kon war nañu yëgoo loolu rek li ñu naan changement de paradigme war loolu rek war nañ cee mën a tëggaat politique bu bees muy l'implication des religieux dans la vie publique te sëriñ bi dafa actifoon ci loolu lépp la muy wéet ak boroom ak la muy def liggéey yonent bi sallallahu alayhi na indi na fi nit koo xam na nii ku jub la ku jullite la waaye société bi kenn ko ci man ñañ fi xamoon koo xam ne nii dafa nekk rek sax ci jaam yàlla wala koo xam ne adduna bi rek ko yitteel waaye indi nit koo xam ne dafa boole lépp sëriñ bi ko fi indi doo yées ci fii doo yées ci fële kon nag day mel ne waxtaan wi moom ni ñu ko bëggee man de ndax ndax day guddi li ma doon wax sa jàmm war na ko mën a weesu kon tubaab bi lu ne teg na ko ba ci maa yomb gii liñ fi jaar lépp ngir lii mu bëgg mu bañ a mën a nekk dong loolu loolu dong nekkoon seen yitte waaye lii ñu bëggoon lii li koy weddi kenn ku gis nga jërul jaar lii weddi ne lañ bëggoon amul moom la mu bëggoon am na gañe na leen kenn ku gis nga fii ci may mm, gabon gii ci la waxee wajal masirisa jawfal barali war a lépp loo doon wër nag ba yem ci jawfal bara mën ngaa wàññi ko xam ne la nga doon wër lépp am loolu lébu arab la aw lébu arab la wuy wax ne booy rëbb ba yem ci biiru mbaam àll booy bëgg a rëbb te xam ne la nga doon lépp am moo tax muy ñaan ci gabon gii ne mbindeef yi lépp liñ soxla àdduna ak àllaaxira na nekk sama tukki bi àllaaxira moom ñi ñëpp xam na ko mucc ku bëgg a texe fii nag lépp luy maye texe ci àdduna muy liggéey muy lépp lu mu mën di doon ku lañ bët biir gaboo gi jaar gi fi jaar taxawaay yi taxawaay yëpp mën naa saabara àdduna loolu ñun dong ñoo ko a mën génne war ko doomu aadama yi kon Serigne Touba kon lépp lu ñu soxla ci wàllu yàlla nga gàcc bëgg ci ndimbal am na ci solution lépp loo gàcc ci sa wàllu àdduna bëgg ci solution am na ko kon projet de société la boo xam ne nii day lijjanti àdduna di lijjanti àllaaxira lii ñu wax lépp nag muy séparé wu gi mu séparé wu njaboot ba tax mu naan xusuur yi xalat wala ahlu am ni tafarraqat li madhi alladi anhul madihu xasiiru sama kër yépp wéet na mais xoolal sant yëg-yëg boobu buñ buñ ko dee xool ci suñ bopp jékki-jékki rek jël la yóbbu la nga tàmmoon lii sa kër yi ñëpp ñu tasaare ko njaboot gépp tasaaroon ndeysaan lu taxoon ngir liggéey lu yonte salaam liggéey boo xam ne ni ñun ñëpp danañ mucc fii ci Gabon la ko fi mu ëpp ay at nag mooy fii ñu toog tey jii ñu maa yow kon lii tax ginnaaw am na solution ci lépp li sëñ Muntaxa di faral di wax rek nañ dund sëriñ bi te xamle sëriñ sëriñ bi dund ko mooy nga xam li mu woote woon lan la nekkoon dëgg-dëgg xam ko nag ba kenn ku ne mën jaajëf ndax sëriñ bi bis boo ko jàngalee koo ko wax faw mu bëgg ko bu dee wax nga ko danga ko ko war a wax lan daa wax rek ku foñ la tax mu foñ ci yow la waaye di man sëñ bi jàmm yi kese la ku ko dégg faw nga bëgg kon bëri na yoon yuñ ci mën a jaar ci wàllu àdduna rek ngir loolu war a mën a am bëri na ndax murid yi jàmbaar lañ lool lu ne def nañ waaye li tax yitte ñëw mooy dañuy jàpp ne defaguñ dara li des a ëpp li kenn ci ñiy gëstu sëriñ Abdou Aziz Mbacke Majalis doon faral di wax murid yi boo leen gis day mel ne ñu yor toolub jamaa di ca bay banaana loolu ab soññeen la du xas mooy li may faral wax Serigne Touba dafa def fondement bu rëy bu dëgër bu àttan lu bari war a mën a teg ay gratte-ciel ay étage yu bari waaye ñun day mel ni ci benn ñaari étage lañ toll day mel ni dañoo xeex fondement bi te fondement bi dafa àttan lu bëri loolu nag bokk na ca lañu ciy dimbali ñu moytu li ñu naan attaque par parlo par rapport loolu sëriñ bi bañoon ba ci Masaalikul Jinaan ni kenn ngeen gis ni mu koy ŋàññi par parloo par parloo képp ku koy def rek déggoo li lislaam woote déggoo li sëriñ bi woote sëriñ bi mësu cee dox kenn ku ko fi nekkal ko ci masa dox par parloo bu amoon danañu yaatal fii lii rek wan nañu ne dangeen ngeen war a dund ñëpp ci jàmm lii rek wane na ko ñu ngi nii fii ñuy jox ci wetu ñii nga xam ne bokkuñu ñoom ñu gëm te moom moo ne de fii la nekkoon seq ak ñoom jàmm ba yàlla may li mu ko may tey mooy ne sëriñ bi buñ ko defee moomeelu Sénégal rek déggaguñ ne moom li mu fi indi ngir àdduna bi la sëriñ bi li ñu naan ab bien public la loolu nag ñëpp a ko bokk koo xam ne day ñëw ne yaa ahal barri yaa ahla baxri oojoo li barri bari sa xaay loolu dañuy wóor ne wóorul waa Sénégal kese wóorul waa Gambie kese ñëpp la woo loolu mu woo ñëpp nag ñun ñi dong ñoo ko mën a doxal ndax yàggu fi yàggu lépp di mën a mata ci moom waaye li am solo mooy wa maa ala rasuli illa al balaagul mubin ndaw lu ne jot li jot lu leer te lam jot li leer na de leer na nañ léegi nag nan lañ ko mën a tas ba àdduna bépp jot moo ci des loolu kon doy andi ne xam-xam yu am njariñ yëpp war nañ ko jàng liggéeyale ko sëriñ bi fexe ba fépp ci àddina am njàngaleem àgg fa te loolu day aaje xam-xam yoo xam ne nii sëriñ bi doon na ko tudd léegi muy sociologie anthropologie yooyu yëpp da koy da koy aaj nit ñoo dem nga xam lan mooy seen culture nan la ñu xalaate ngir li nga bëgg mën koo jot waaye du ni ngay waxee Gabon gii noonu ngay waxee États-Unis du na ngay waxee États-Unis noonu ngay waxee Russie bokkuñ loolu xam-xam da koo laaj xam-xam boobu nag ginnaaw da koo laaj te boo ko jàngee mën nga cee liggéeyal sa nit jàng ko day faral moo tax caravane bii ren ñu sukkandiku bu baax ci xam-xam ñu liggéey ci liggéey bu rëy kon ñooñu dégg nañ message bi ne sëriñ bi ku ko bëgg a xamle faaw nga tegu ci xam-xam ndax du pour ñun rek bu doon ñun rek mën nañoo wax lu ñu dégg waaye adduna bi nag dafa am lu ñu soxla kon lii ngeen def ab signal la pour ñëpp ndax gis nañu waa Rawdu Rayaahin yi ñu ci impliqué wu gis ngeen coono yi ngeen ci daj yëpp moo tax maa ngi wax sëñ Cheikh ñoom tey ne li ngeen jëmbat ren jii déwén ngeen di gis njariñ ak at yi ci topp mbir mi bu dee diis na ci yéen fi ne nii na leen wóor ne déwén ay gën a diis baa waajal ngeen ko bëri na ñoo xam ne nii ñu ngi ñuy suivre lool lool lool lool lool vidéo yi ndaw ndawaan yi ma fi dugal Facebook rek li ko seetaan xamu nu mu ba bañuy def conférence ba léegi maa ngi jot ay message ñu wax euh, ay américain lañ ñoo xam ne ñi ñi ngi laaj ndax dama leen waxoon ne euh, anglais bi dañ ko ci dajale waaye waxtu bi moo xat kenn mënatu ko ñoom ñu ngi doon xaar ana yëf yi nga xam ñi ngi ko doon bàyyi xel waaye li ma fa yéene mooy defal leen ab tënk rek yónnee leen ko xam ne lii lañ doon waxtaane te li tax seen communication bi am solo mooy buñ toogoon fii ñaari nit rek daje fi nga wax fi anglais wala français dafay des doo xam kan mooy jëb bis gëstu ne nangam laa bëgg xam sëñ Tuubaa yam sa vidéo boobu nga jàngal ko média lim mën a jeexital dafa bëri lim mën a jeexital dafa bëri waaye nag dama naan Gabon ñi ngi ñaan liggéey bi àgg ba ci bu ñu wootee Karabakh maa yomba ay téeméeri téeméeri ci ay Gabonais ñëw ji dugg ci diine jaare ko ci keppaaru sëriñ université Gabon yii war nañoo mën a am ay partenaires ak ñoom di fa dem di leen xamal sëriñ bi de manière scientifique lu mën a nekk la ndax sëriñ bi da ko am te kenn gënu leen cee ñoom Gabon gi liggéey bi foofu la gën a nekk fexe ba ku dugg ci diine yi ñu fexe ba tëye ko ci xam-xam ndax dafa am phénomène bu tàmbalee feeñ bëri na ñuy dugg ci diine ji ci keppaaru sëriñ lu bëri li ma ci xam lu dul jeex loo xam génnaat nañ kenn mënu koo xam kenn mënu koo xam damay bañ tudd dem nañ fii dem nañ fële ndax lu luy xeemeem loolu nit ñi moom mi ngi waaye lu leen di téye sëriñ bi war a gën liggéey exemple bi ma jox rek mooy île Maurice dafa am soxna soo xam ne ñu ko tudd Layla dafa am sa message ne moom man de bi ma la gisee gëmëyuma la ndax ku ma teg ci yoon daal dama koo ñàkkoon ndax ñun see xam naa ji moo ñu dugaloon ci yoonu murid waaye ba mu fi jógee ba léegi amuñu kenn ku ñu teg ci yoon ma ne lii lii ko nu yëfi demee mënu ñu ëpp dem nañ ci diw ak ma ne ko ñaataa des mu ne ah xanaa de wax nañoo ma téeméeri fan yi ci laa leen créé groupe WhatsApp di leen jàngal jëwar na bis liggéey bi foofu la nekk maanaam ay taxaw lañ amul barke bi moom mi ngi fi waaye barke bi bu ñëwee mi ngi fi rek ñi ngi dugg ndimaabu di ñëw waaye lu leen fi téye ñoo ko war a liggéey ñun te sëriñ bi liggéeyal nañu fi luñ luñ ko mën a def mi ngi fi am na ci jotaay yoo xam ne doo ci mën a dugg ndax xam naa ne lu bari ndax maa ngi joññoo ñoom kon liggéey bi foofu la war a nekk ñu fexe ba xam-xam bi sëriñ bi yore bi njariñ bi ñu wan ko nit ñi duñ bëgg a demati fenn fexe ba buñ toogee ci dëkk yi nga xam ne du dëkk Sénégal ñuy fexe ba nit ñi ñu leen wax ak ñoom ci seeni làkk buñ toogee suñu biir nag ñu wax li bëgg a wax nit ñi ñu fekki leen jàpp ko muy tàmbali boo xam ne nii mënees na ko yaa ndax lii man danaa ko gën a àggale gën koo defar danaa fexe wax naa ko suñu Cheikh traduire ko ci anglais traduire ko ci arabe jox leen ko ngeen ko bëgg a jëfandikoo ngeen jëfandikoo ndax dafa jot nee naa nag Gabon waroon na ginnaaw mooy liggéeyu buy ñëw six mois à l'avance ñu waajal ko bu dootoon gabon gi màggal gi du am gabon bu ñëwee caravane bi war naa mën a fexe ci àdduna nit dafa bàyyi di ñëw bala moo ñëw ngir dem États-Unis dem Mauritanie ndax bu leen fàtte Mauritanie ne moo moo mot li liggéey bi ñetti at yi ba mat fukki at yi sëñ bi faral di wax dem Côte d'Ivoire dem faneen waajale waaye nag bi waaye nag dañ ci deme xel tànn ñaar ñetti dëkk dem fa dafay activité yoo xam dañ leen sensibiliser ci sëriñ bi bañ intéressé yu ñëw Gabon nga xam ne ñii moom bu caravane ñëwee danañ ci ñëw bu ñëwee nag rikwaay nañ fi fekk lañ fi doon séentu te yóbbaale ko bañ mën a dikkaat nekk ci xol bi bari na waaye yii ji xam ngeen ko ñu ngi ñaan suñu borom àggale lépp yéen ñi fi nekk nag war ngeen a sant yàlla ndax sëriñ bi moo leen tànnal boppam du ku bëgg a liggéey liggéey ko loolu de sëriñ Fallou Bousso moo sos lii fekke wu ko tey waaye xolam seet waaye yéen ñi ko yëkkati ba la mu bëggoon sotti te li des a ëpp war ngeen a sant yàlla yàlla biir ñii rek la koy doon yéen tamit yàlla ngeen fi yàgg lool waaye da ngeen mas dem ñeneen ñëw seeni sataat ñëwaat na lépp tegu ci xam-xam na lépp rafet xam ne lii dañ koy jël dem ci sëriñ tubaa gaaral ko ne ko lii lañ fi nekk woon pas-pas boobu na ko ñëpp am jaayantewaat te xam ne sëriñ mooy tànn boppam ku sëriñ bi bëggoon ne tey jii doo fanaan la nga war a liggéey man doo fi fanaan ku ko jàppee noonu ne dañ lay liggéeyloo rek lépp rafet te ngeen gëm na liggéey bi nag defegu leen dara jàmbaar ngeen lool de waaye li leen desee waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu wali raadawm duran wali galamal janba aqaasani al anam min kaydi man xala wasalaka naaril xilli li baru ma yumba